asalaamaaleykum wa tey nag damay ñëw waxtaan ak sama mbokku jigéen ñi sans tabu amul kersan ah. tey indil naa leen benn puudar bu garaaw ñu koy wax puudar dalan bu xabatu sawda si soxo si soxo xabatu sawda mu ngi nii de ni ngeen koy xàmmee ma wax leen nag njëriñam lii boo amee infection boo koy jël di ko raxasoo yàlla dina la si defal jàmm booy boo fekkee da ngay am ay perte blanche dangay am ay xetu kanam ak yooyu yooyu yëpp boo ko jëlee baax na si man lépp loo xamante ne si tey boo duggee si sa toilette di nga ko xool si sa bopp ci sa kanam mu naqari la te mënoo koo partagé kenn ka partagé ko kii maa la ko wax de doo ci am dara lu la naqari fii rek nag la am muy chez Sissoko Habbatu Sauda wante nag bu leen fàtte infection day dal ku góor day jigéen donc jigéen mën na ko waalo góor comme góor mën na ko waalo jigéen yéen tamit góor ñi kenn demul ngeen des ñëw leen ngeen jënd si poudre bii fàggu li nga xamante ne si mooy infection yi nga xamante ne si fa muy jëm neexul kenn te day naqaril couple infection fu mu am du neex maa wax du neex de ñëw leen mi ngi nii